temps am pare nañu Zarko pare nga moo daan te pare nga ñu ne waaw pare ngeen moo daan am na suguf su mu suy ci kanamu Zarko Zarko jël na laar moom it teg ko ci diggante ak moo daan ta arbitre wax muy wax ak ñoom est-ce que pare nañu sifflé nañu ndeysaan tey di dimanche di 11 mars 2017 fii ci stade Demba Diop Assane Ndiaye bool production drapeau ajaratu ay de la leen di bool di président du groupe parlementaire libéral waaw bu ñu daje rek mu sotti ragal naa ne combat bi benn cong lay doon rek mu daal di sotti Modou Anta Zarko ndeysaan may ndokkeel sama xarit sama doomu ndey le coordonnateur de la Grand Yoff Adama Faye mu baax mi dama ko wax ne yaa oddu jumaa yeeg jàkka yi dama ko wax ne yaay tëral jigéen ñeeg jeunes yooyu di embauché gune ah, gis nañu sa taxawaay ci combat Zarko bi waaye Sidi Diakhaté gis nañ ñu nga moo daan ta la sénégalité bareegulu de daje nañu Zarko teq na moo daan ta nañu daje nañu daje nañu Zarko moo daan ne woon naa day gaaw mais nu mu coog a arbitre arbitre bu sol waay esal ko Morante Morante bëgg na ko plaqué sottiwul ilaha <laughs> illallah Zarko Morante jeex na jeex na Zarko sigi waat nañ ñoom ñaar arbitre sukol Zarko Morante ku ci yaa ngi jàpp sa ngem morom léegi mu sottee léegi mu sottee xaaxu nu nag Zarko teq na Moranta la ilaha illallah Moranta tekki na ko <laughs> Zarko Moranta Zarko Moranta la ilaha illallah ne woon naa la buñ dajee rek mu jeex Zarko Moranta Zarko daa bëgg a jàpp waaye Moranta bopp bi ko teg ne ngeen gi ko teg ci baat mooy li ko gêné Zarko ngi door pour Moranta sigi waaye Moranta dafa li fi baax Zarko demal attention Modou Anta fi mu jàpp baax na Zarko boo sigee njàkk ñu ngi xeex Modou Anta ngi dóor Zarko ngi dóor jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na laa ilaaha illallaah ñaari xale yi ngi bëre ñaari xale yi li xara ba ca gila la laa ilaaha illallaah oho ñaari xale yi Zarko Modou Anta <laughs> mbaar Mor Anta ngi ne ngeen ba tey jàpp Zarko da ko bëgg a bët Zarko def attention kala bi Zarko bi Zarko génnaat na Zarko génnaat na bi <laughs> ndengeñ bi ndengeñ bee ko soxal waaye Mor bi tey la mën a bëre jeex na teq nañ ko Mor Anta teggi ko ngi enchaîné action dara amul. ñaari xale yi ngi bëre ñaari xale yi ngi bëre ñaari xale yi ngi bëre def nañu fi ñaari jàmbaar bu ñu dajee foog kenn tëdd Zarko moo daan tànn tey la tey Basirou tey lépp yi ñoom da ngaa soxla ndam Zarko moo daan tànn Zarko moo daan tànn moo boo teggeel ndegeeñ bi rek caafu meer bés boo tegeel ne ngeen bi Zarko liggéey Zarko moo daan taa Zarko moo daan taa ne woon naa la combat bu metti lay doon dañuy dajawaat ndeysaan ndeysaan na bu yaa na bàyyi leen seen yaaba ji te laale laale baaxu góor la daje nañ jeex na Zarko moo daan mu daan tàggoo jéem a mbot mu daan tàgg jéem a mbot Zarko Zarko bañ na Zarko bañ na Zarko noju na Zarko moo daan ta attention attention Zarko da ko bëgg a ëmb seet teet teet teet Mamadou Kébé ñaari xale yi mën a bëri barke yàlla moo mel. danañu daje Zarko siggi na day dafa bëgg a nax Modou Anta waaye Zarko bu ma doon yow siggi boobu wóorul su ma siggi bi siggi bi Anta Zarko siggi waat na Zarko Modou Anta ñu ngi ne tekk ñoom ñaar ku ci ne di déglu sa morom ñu ngi ne tekk ñoom ñaar Zarko Modou Anta laa ilaaha illallaah Zarko da ko boole puus <laughs> laa ilaaha illallaah waaye xeexuñu ba tey jeex na jeex jeex na Modou Anta Modou Anta a ngi tël Zarko Zarko rasuna Zarko rasuna dafa bari doole dafa bari doole moo daan da jëm na koo xar sottiwul mu jëm koo plaqué sel koo rasu fi doole mooy feeñ ak physique doole mooy feeñ ak physique ndax bari nañu daanaka lu toll ci fukki minute ak juróom Zarko Grand Yoff Mbolo moo daan te Thiès ndeysaan jeex na Modou Anta takk na Zarko Modou Anta takk na Zarko attention Zarko attention Modou Anta gënaat na Zarko a ngi teg Modou Anta Zarko Modou Anta daan na Zarko Modou Anta daan na Zarko Modou Anta daan na Zarko Modou Anta daan na Zarko Modou Anta daan na Zarko Modou Anta daan na Zarko